docteur Bakary Thior euh, ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay euh, soxna Fatou. am nañu mbégte lool dalal ci matinalu mi FM tey nga nekk ci DES anesthésie réanimation euh, liggéey ca CTO e bu Dalal Jàmm division réanimation alors dañuy tàmbali ak deuxième vague coronavirus bi nga xam ne ñu ngi koy lam-laame yéen en tant que wekor docteur naka ngeen di xaare boobu boobule deuxième vague nga xam ne tàmbali na fës ci cas yi yokk bés bu jot. waa je pense que ni comme ni nga ko waxee deuxième vague mi ñu ngi ci parce que bu ñu xoolee fan yi ñu mujj juróomi fan yi ñu génn yëpp saa su nekk dañuy am lim bu mat daanaka téeméeri cas kon bu ko defee ñu ñu mën a confirmer rek ni kon deuxième vague bi nga xam ni ñi ngi ko doon gis ci yeneen dëkk yi nga xam ni ñoo ñu wër lu ci mel ni ay France ak yeneen réewu tugal tey deuxième vague boobu ñu ngi koy dund Sénégal te ñun en tant que agent de santé ba pare bokkoon ci ñi nga xam ni. dañ doon jël malade yi en charge ci première vague bi vraiment ñi ngi jël suñu disposition yëpp pour fexe ba malade yi ñuy indil jamono yi nii ñu jël leen en charge jël bu baax. Mm-hmm. foofu ci dalal jàmm lan mooy situation bi euh, tey est-ce que malade yi yokku nañu cas grave également. waaw waaw ndaxte jamono yi ñu weesu nga xam ni saa su nekk dañu doon wax ni ka amul wala ay tuuti cas ñoo am jamono yooyu amuñu woon ay malade yu bëri ba nga xam ni nguur gi sax jotoon na tëj CTI yu bëri bàyyi woon bu dalal jàmm ak bu faan waaye fi mu toll nii moom cas yi commencé waat nañu bëri parce que ñi ngi jot ay cas yu bëree bëri fi mu toll nii foofu ca hôpital Dalal Jàmm mm. di leen fa fajee ñun aussi gis nañu ne cas yi nga xam ne ñoo nekk ci réanimation bi nit ñi tamit ñu ngi dolleeku et je pense que loolu saa su nekk bu ministère bi defee euh, euh, déclaration bi nga xam ni moom lay def bës bu nekk di ngeen gis nii tamit kaaw réanimation yi ñu ngi di yokk te boo xoolee tamit ñi ciy wàññeeku aussi commencé waan na. alors est-ce que dalal jàmm am ngeen assez de place pour dalal malade yi bu ñu ñëwee surtout cas yi ci réanimation parce que doon nañ dégg aussi jafe-jafe yooyu ci yenn hôpitaux yi. waaw fi mu toll nii waa dalal jàmm ñi ngi fexe jël malade yëpp en charge yi nga xam ni ñoo fi am mais tendance bi ñu gis nii moom bu continuer gëm naa ni dalal jàmm kese du doy waaye juste assurer nit ñi rek ni dalal jàmm moom am na capacité bu rëy parce que mu daan nañu jël ba weesu euh, ñaar téeméeri malade dan nañ ko weesu ci ci boobu secteur donc foofu moom am na place yu bëree bëree bëri waaw te ñi ngi jël matuwaay yëpp yi nga xam ni moo war pour que malade yi ñu leen di toppatoo bu bu baax foofu noonu. Mhm. ci service réanimation bi tamit. malaat yi ñi ngi fa ñu ngi leen di jël en charge bu baax a baax. Mhm. alors pandémie bi di mbas mi ci euh, première vague bi euh, déggoon nañu ay euh, citoyens simples aussi ak sax ñoo xam ne ci wàllu wér gi yaram la ñuy yëngu di am ay ñaxtu yoo xam ne dañu koy fësal jëm ci ni ñu gérer yëf yi lan nga gis ni njuumte la woon te waruñu koo defaat ci deuxième vague bi. waaw damay jaajëfal rek gouvernement Sénégal ci matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko ba feebar bi duggee Sénégal fii ba léegi. di jaajëfal suñu ministère de la santé di jaajëfal tamit ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi liggéey ci santé bi vraiment di ci def liggéey bu ama ama am solo waaye loolu teewul mën nañu décrier tuuti li nga xam ni xëy na gis nañ ni moo waraloon première vague bi fi mu yegg mu yegg fa lu ci mel ni aéroport yi tëj biñ ko yéexoon a tëj ak tamit dajaloo yeeg yooyu nga xam ni xëy na yéex nañu jël décision wu arrêté ko demoon nañ sax ba jamono joo xam ne ñi ngi doon xalaat li ñuy wax confinement mais yàlla def na ni Sénégal mujjuñu ko am en ci bëccëg bi waaye guddi gi kese lañ doon tere ñi ñu ñu génn je pense que loolu buñ ko teeloon na def ci mbo ci ndorteel ba faj bi doon na gën a jaaroon te feebar bi xëy na doon woon yegg fii nii mu yegg di ci des moom ci lu jëm ay erreur ci mbirum euh, mbas mi décision yi yéex a jël pour tere nit ñi ñuy dajaloo ak yu mel noonu. Mm. alors malgré loolu yëpp nag gisoon nañ ni quand même Sénégal euh, buñ ko méngalee ak yeneen réew wala Afrique en général sax euh, li ñu doon xaar mu yëf yi metti fi lool euh, demeewul noonu ci sa xalaat lan moo ñu may ñu mën a mucc à ce point. waaw yaakaar naa ni comme ni ñu ko gisee ci àdduna feebaru coronavirus bi mag ñi la gën a la gën a jàpp te boo xoolee tey Afrique ak rawatina Sénégal seeni population dafa nekk population bi ñuy wax une population maanaam ndaw ji ñoo ci ëpp xëy na loolu bokk na ci facteurs yi nga xam ni waral nañu feebar bi euh, euh, njeextal yi mu am ci yeneen réewu tugal yi amu ko ci suñu dëkk yi parce que bu ñu seetloo bu baax réewu tugal yi tamit ñi fay feebar bi gën a faagaagal mooy mooy mooy mag ñi te fii xëy na mag ñi gën nañu tuut lim lim bi gën naa néew ko ci dëkk yooyu loolu waral na tey liñ doon xaar ci Afrique feebar bi law fi ba def fi ay dégâts yi nga xam ne waa OMS même loolu lañ doon xaar gisuñu ko tey ci ci Afrique. Mhm. alors euh, mbirum prime aussi daan nañ ko dégg muy coow ci CTE yi ñu bëri euh, doon ñaxtu ne jotuñu ko te bu ko jotul dañuy euh, wàcc liggéey bi wàcc itam malade yi est-ce que mbir moomu tey am na saafara. waaw yaakaar naa ni état wu Sénégal jëloon nañu décision ba bi duggee Sénégal jox képp koo xam ne mi ngi liggéey ci mbirum santé bi. benn prix mu cinquante mille ba pare ñi nga xam ne ñoom ñoo doon liggéey directement ci CTE yi nga xam ne ñoo doon toppatoo malade yi ku ci nekk doon lañ la jox prix mu cent cinquante mille loolu yaakaar naa dégguma ci benn coow te amuloon benn problème mais problème yi fu mu ëppee woon mooy docteur yi nga xam ne ak infirmier yi ak ñeneen ñi nga xam ne tey ministère de la santé moo leen signé loon ay ay ay contrat pour ñu ñëw liggéey juste pour ci mbas mi ñooñu la seen payoor doon tardé gis nañ leen ay yoon yoon ñu génn menacé ni dañuy grève wala dañuy bàyyi fekk fayuñu leen et yaakaar naa ni loolu après waxtaan nañ seen biir ba trouver ci solution ku ci mm. nekk ñu jox la sa waru gar nga def ko état bi fay ñi mu amee loon seen xaalis ñëpp Mmh. alors euh, cas yi euh, tàmbali nañoo yokk naturellement cas yi tamit euh, di gën di bëri juste moo ñu bëggoon xam cas yooyu naka la leen di jëlee en charge ci service réanimation yi boo ñu ci mënee wax tuuti. waaw fii ci Sénégal alhamdulilah bi feebar bi duggee rek ñi nga xam ni seen xam-xam dafa màcc jëm ci mbirum faj dajaloo nañu lu ci mel ni société bi nga xam moo ëmb ñiy faj mbu feebaru xol yi feebar yi nga xam ni ñun waa anesthésie réanimation moom la ñuy jël en charge ak ñi nga xam ni ñooy faj mbirum infection yi ak yeneen yi dañoo dajaloo defar benn kayit boo xam ni dañ ko def à la disposition de tous les agents de santé sénégalais ci yi pour ñuy sukkandiku ci loolu pour di faj malaat yi donc ci sukk ci kayit boobu noonu la ñuy sukkandiku tey fépp ci Sénégal pour malaat yi ñu leen di faj ci biir réanimation nag li ci ëpp malade yi ñu fay recevoir day nekk ay malade yu ñuy wax grave yoo xam dañuy ñëwaale ak ay gàllankoor yu bëri lu ci mel ni nooy bi faagaagal ba nga xam ne mën nañu dem war laa dimbali sa nooy yi euh, ba mën a utiliser ay machines artificielles pour ñu lay nooyeel ak yeneeni xeetu faj yu ci mel ni ñu war laa dialyser ak ñoom seen mais yooyu yëpp yàlla dimbali na Sénégal tey ba matuwaay yooyu nguur gi def na ko à la disposition des hôpitaux yi nga xam ne ñoo doon jël en charge cas grave pour ñu mën a def seen liggéey ci lu jaar yoon. kon daal mun nañu ne tey euh, Sénégal plateau médical am noppi na ngir jano ak deuxième vague bu dee euh, wéy na. alhamdulilah en tout cas ci la plupart des centres yi nekk fii Dakar lu ci mel ni hôpital principal lu ci mel ni hôpital Fann lu ci mel ni hôpital Dalal Jàmm. seeni plateau médical ñi ngi fonctionner pour jël en charge les cas graves waaye nag ci biir raison yi moom dese nañoo leer ndaxte bu ngeen xoolee ci commencement feebar ba professeur Seydi defoon na fi benn sortie mhm. doon ñaxtu ci manque bi nga xam ni ay machine daf ko manqué woon lu ci mel ni fee ca Ziguinchor mhm. je pense que loolu xëy na nguur gi jël na ci ay matuwaay ba tey boo demee ci Sénégal région bu ci nekk centre bañ fa teg def nañ fa ay machine yoo xam dina mën a jël cas grave yi nga xam ni ñoom ñoo fa ñoom ñoo fa nekk. Hmm. waaye foofu dalal jàmm moom lépp jàmm am ngeen uh, jumtukaay yi war. waa alhamdulilah fii si dalal jàmm moom am nañ jumtukaay yi nga xam ni ñoo ci war lépp pour jël en charge suñuy malaat fii la koy defee ci biir hôpital bi duñ mm. leen génnee di leen yóbbu di leen yóbbu feneen mm. lépp dañ mm. soxla ñu ngi koy am ci biir hôpital bi di ko fa defee mm-hmm. alors docteur Thior en tant que réanimateur aussi bëgg naa la laaj euh, ndax euh, malaat bu duggee réanimation euh, chance yi mu am ngir faatu ya mu am ngir dund moo ko gën a néew ndax dañuy tiit des fois bu ñu déggee cas grave rek dañuy jàpp ne dee na est-ce que noonu lay demee waaw loolu moom opinion commune bi moom moom xalaate noonu nekkul ni malade bu fa dugg rek ni da ngay da da ngay da ngay da ngay faatu déedéet réanimation au contraire bu ñu fa dugalee malade c'est parce que présenté na loo xam ne fi mu nekkoon mënuñu ko mënatuñ ko jël en charge dafay soxla ñu ñu ko. Mm-hmm. ci biir faj boobu noonu biir réanimation bëri na ay yu bëree bëri yoo xam ni sauvé sauvé nañ leen ci y a même yoo xam dañ di dégg toujours ci rajo yi yu génn témoigner loolu ñoom mm-hmm. jaar nañ réanimation après ñu génn. Mm-hmm. comme aussi Euh, du feebaru coronavirus bi kese mais dañuy amaale yeneen feebar yoo xam ne dafay bokkaale ci feebaru corona boobu corona bi yeewaale leen ba nga xam ni vraiment dina jafe trop pour ñu récupérer leen. Mhm. alors xëy na ñu bàyyi la boo amee looy wax askan wi ndax itam euh, ñu bari ba léegi ñu ngi wéy di wax ne jàngoro ji amul euh, lank takk masque yi tax ñu indiwaat euh, yenn mesure yi nga xam ne mooy contraindre nit ñi maanaam forcer leen ngir ñu takk masque yooyu en tant que médecin looy yóbbante comme message ci askan wi de manière générale. waaw li nga wax nii dama koy dëggal rek mu doon nag lu ma bett parce sénégal yëpp conscient nañu ni feebar bi lu am la te ku nekk dina jéem a jël ay matuwaayam pour xeex ko ndax yaakaar naa ku ko gisul tamit dégg nga mbokk wala sa xarit boo xam ne ñàkk na ci jegewaaleem donc may xamal nit ñi rek ni ñun ñi nga xam ni dañuy liggéey tey ci santé amuñu benn intérêt di inventé feebar fii ci Sénégal pour tiital nit ñi wala di leen def looloo xam ni daanuñu ko woon daanuñu ko woon gis donc ñuy soññu askan wi rek ne leen ñu respecté li nga xam ni mooy mesure barrière yi raxas loxo yi ba mu set di takk masque yi wàññi euh, rassemblement yi vraiment nekk en conformité ak digal yi nga xam ne tey Sénégal nguur gi jël na ko pour ñu xeex feebar boobu mu bañ a law comme ni mu lawee woon ci première vague bi ba ñu indi ay gàllankoor comme ni mu ko indee woon. Mm-hmm. tey jiixi jaaxa bi tamit fi mu nekk mooy ci deuxième vague bi am na ñoo xam ni gëmuñu ko nee nañu dañoo créer deuxième vague juste pour vaccin bi nga xam ne ñu bëri ñu ngi koy bañ déjà te yegg seegul mu mun a jàll askan wi tiit ba daal di jël boobule ñàkk lan nga yóbbante ni kàddu aussi en tant que xëy na ku gën a xam li xew que man mi toog fii di wax. yaakaaruma loolu ndax li koy firndeel mooy ba te boobu waxaguñu woon sax ni am na ay vaccin yoo xam ni xëy na dinañ ko mettre sur le marché am déet tey monde bi amuñu intérêt di créer deuxième vague pour jàllale vaccin ndax boo gisee ci réew mu mel ni réew France yàgg deuxième vague bi commencé na fa bu yàgg te mbirum vaccin kenn waxu ko woon juste wax Sénégalais yi rek ne leen ba fi ñu toll nii comme ni ko suñu ministre waxee keroog OMS amul benn euh, vaccin boo xam ni moom homologué na ko mooy maanaam nangu na ko pour ñu utiliser ko avec consensus ci àdduna bi yëpp te ñun fa la ñu donc pour le moment mbirum vaccin nañu xam ni débat yi ci nekk yëpp nekkul débat yo xam ni scientifiquement dafa fondé wu mais ku ci nekk dafa nekk ci toile bi di wax li nga xam ni mooy xalaatam fii ci Sénégal ñun en tant que agent de santé feebar bi dañ koo gis mu ñëwaat muy wax ni ñëwaat na ndax jamono yi nga xam ni kenn gisu ko woon kenn waxatul woon mbirum mbirum feebar bi mm. kon ci sama yaakaar amul dara loo xam ni xëy na motif la di ay créer ay deuxième pour di pour di vaccin ndax bu fekkoon dañoo bëgg a vacciner nit ñi sans pour autant ñu yëgal leen ko wala ñu xamal leen ko tey am nañu yeneen moyens yoo xam ne nit ñi mën nañ ko utiliser pour def loolu te yaakaar naa defuñu ko tout le temps nguur gi mi ngi jéem a communiquer maximum ci mbirum vaccin boobu pour leeral xelu nit ñi ci fuñ ci toll ak ñu ciy demee ba nga xam ne tey bis bu ñëwoon ku ci nekk tamit di nga xam ni koy ni ni ngi ciy demee ak aussi moom mu wax ñu ñu ngi ciy demee. Euh, fi ñu jeexale mooy beneen rumeur boo xam ne tamit dañu koy dégg muy euh, virus bi bi mu ñëwaatee dafa gën a mortel maanaam dafa gën a am doole gën a mën a gaaw a faat est-ce que loolu firndeel euh, ngeen ko. en tout cas ci li nga xam ni mooy seetlu bi ñu def virus bi ci première vague bi ni mu ci amee woon doole ak ni mu ci doon faagaagalee nit ñi ci réewu tugal yi deuxième vague bi melu ci noonu bu ñu defee comparaison wu tendance mortelle yi. Hmm. dafa dafa wàññeeku fii ci Sénégal nag comme dañ ciy soog a door tamit tendance yi nga xam ne moom lañu la ñu gisagum ñu wax ñu firndeel nii hmm. virus bi dafa gën a dafa dafa gën a am doole pour en tout cas di dafa gën a viril pour di di rayaate hmm. waaye rek ñu xam ni lu ci mënti am mooy lu jëm ci mbirum virus bi dafa yokku doolem ci faagaagal bi am déet loolu ay ay étude scientifique moo ko mën a moo ko mën a wone hmm. te ba fi ñu toll nii amagul ay étude scientifique yoo xam ni Euh, dañ ko publier wax ni virus bi dafa dafa gën a dafa gën a mortel au contraire sax dañuy xaar ci virus bi mu mortalité bi ak virulence bi mu gën a wàññeeku ndax loolu mooy mooy li jëm ci mbirum immunité bi ñu doon wax immunité collective bi xam mm-hmm. ñu ko doon euh, ñu ko doon yéexi jaaxa di ci mm-hmm. waxtaan boobu ba léegi mm-hmm. ak aussi waral vaccin bi donc virus bi mënul ñëw gën a gën a gën a mortel jërëjëf docteur Bakary Thior amoon nañu mbégte dalal ci matinalu tey bi fàttali ni yaa ngi ci DES anesthésie réanimation nekk itam euh, médecin ci euh, CTE bu dalal jàmm division réanimation ñu ngi lay gërëm bu baax jërëjëf soxna Fatou maa ngi leen di gërëm di gërëm waa réew mi FM yëpp tëjee rek soññee population bi ñu respecté mesure barrière yi. jërëjëf jërëjëf.